mbokki internautes yi ñuy bàyyi xel ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ziyaara Cheikh Maodul Muntaxa Mbàkke Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem kilifa yi ci alxamis ji dëppook ñaar fukki fan ak benn ci novembre atum 2019 xalif général des seri Serigne Muntaxa Mbàkke Bachir bàyyeekoo na fii ci Touba ak délégation ngir dem ci dëkk bi nga xam ne moo di tiib di dëkkub waajuram wu tedd di Cheikh Maodul Bachir sëriñ bi nag bi muy agsi ci dëkk bi fekk na fi mbooloo mu takk lool ñu koy xaar muy ay taalibe ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo di waa dëkk bi ngir teertu gan gu am solo gi nga xamante ni moo di xalif général des mourides ñëw ci dëkk bi ni nga xam ne noonu la koy defee at mu jot. tiim nag nekk dëkkub Cheikh Mouhamadoul boo xam ne mi ngi nekkee ci département bu Mbacké ci tali bi nga xamante ni moom lañ naa route de sëriñ bi nag fii ci tiib dana fi defi fan. moom moo waral mboolem daayira yi nga xam ne programme nañ seeni ziar fii la ñuy fekk sëriñ bi muy ci dëkk bi sëriñ bi nag bi muy ñëw ànd naag mboolem jëwrin yi muy sëriñ Cheikh Mbacke Abdou Latif sëriñ Mamor Mbacke sëriñ Modou Roqeya sëriñ Jili Bas sëriñ Muntaxa Mbacke moom sëriñ Cheikh Forage sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Fallou bu sëriñ Basiru Roqeya ak mbooleem ndongo tarbiya yi nga xam ne saa su ne ñu ngi ànd ak Serigne Mountakha Mbacké Bachir liggéey bi kon mbokki internautes yi incha allah lépp loo xam ne dana bàyyeekoo ci ngan gi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha Bachir moom lay amal fii ci Typ daañu leen ko baaxee ak mbooleem daayira yi nga xam ne ak kilifa yi daañu fi ñëw amal fi ay ziyaara الفتاة يا الله ألم تنل قيباء تعثت منتميئا أتى الأليم ذاسين ألمت يا الله خبرت يا قابل أساء وانصرفت لخير نبيك الأدار يا الله بزار ساكت أمال لي بريدا فاذكر مبعثتي دارين يا الله بسات يا باسط الأعمال لي بريضا فاذكر مبعثتي دارين يا الله naa ko. Ah, li bëgg ma xam ko ci ñoom léegi gis naa ko. alhamdulilah jëfe nañ ko gis naa ko la bu baax mhm. sama kër samay kër laay dem. dëgg la damay damay liggéeyal sëñ Tuubaa rek. muy suñu kilifa gi ak suñu ñaari doom yi ñu booleel muy xaarim mi ak may. ñi nga fi day ñëw nañ ko sëg. waaw loolu rek daal. ñaanal gën a ñaanal rek. waaw waaw kii moom maamoon ni mu toggoon suñu Basiru daa mel ne moo xam naa ne tur gi mu tuddee suñu Basiru ak maamoon ni mu ko liggéeyal woon ba am gërëm suñu Tuubaa daa mel daa ci moom li mu fi doole ci làmp mën na juróom fukki làmp ci bi fi ne bu mag bi bi dañ ko def ba làmp bi ko poste bi kalaate lakk ci guddi gi la la fexe ba ñu indiwaat beneen boo xam ne ñaar ne booba doole <laughs> a أداء لي وما لو لخير نهري بقصد منك يا الله رواك يا رافع الدارين مرتبتي بلا انقبال بفضل منك يا الله رواك مرتباته بلا انقطاع بفضل منك يا الله رواك يا رافع الدارين مرتباته بلا انقطاع بفضل منك يا الله أنت المي ثلاثي لا ستعيستك خلال وينسا واحد بل فيك يا علام عسى المسل لاسي سلالي ستي الانس والجن سيطان يا الله انت سميع لاسي ناديت سمانا وبالمصارات لي قد جئت يا الله أنت البصير الذي لغاد جملة ما لاخترت الدنيا وأخرى منك يا الله أكمت يا أكم باقي بكون يا سعد فوزي بما قاب من بصراك يا الله ñoom ñi ngi bàyyi ko ba Louga lañ bàyyi ko la boo xam ne ay jigéen rek ñoo ci nekk mbirum saas femme ci lañ yëngu war a def examen ñu dajaloo bàyyi ko Louga ñëw fekk si la fii ngeen nga ñaanal leen soxna Jogo sëriñ bi neen dégg na kàddu yi nee na mi ngi sant bu baax ak yitte yi ngeen def bàyyi ko Louga ñëw ba fi fekk ko fi mi ngi leen di ñaanal leen ñëpp suñu borom dimbali ñu ba dajee tawfeex sëriñ Touba seen lépp gën di yomb seen lépp gën di yëwén seen lépp gën di barkeel na ñëpp tàllal seen loxo amiin ne leen amiin amiin ngeen jëf nooru daaray ni Serigne Cheikh Dieng